le capitaine Mor Tine commandant 23e compagnie gendarmerie de secours de Touba tey ci 22h bu tegee fanweeri simili ak juróom-ñeent dañ ñoo alerté benn incendie au marché Ocass fii après ñun bu ñu accédé fii nii dix minutes après euh, ci lañ fekk ay table di lakk fii ci marché Ocass aussi rapidement ci lañ intervenir pour xañ lakk-lakk bi mu àgg ci magasin yi nekk à Euh, yàlla suturaal nañu ba vraiment on a pu intervenir et puis éteindre ko aussi rapidement. mbir mi yomboon na wala xawoon na jafe tuuti. bon intervention quand même dañuy tanewante rek mais mënuñoo wax yomb na wala aussi parce que léeg-léeg sax ñu wax marché occas rek déjà ça prend de l'ampleur mais aussi rapidement ñun amuñoon difficulté pour accéder fii aussi rapidement après limité nañ dégâts yi ba bu doon xayma dégâts yi mu tëddee. bon comme ay table la nag duñ ko mën a xayma exactement. donc euh, bu ñu fayee kii bi amoon na un peu désordre moo tax doo mën a wax na ñaata table moo ci nekkoon fii bu fekkoon propriétaire ñu ngi fi ñoo ciy mën a bu baax a baax comme.